waaw kay jërëjëf ñu ngi taxaw ak sëñ Basirou Bousso ak délégation bi mu ci turu asxaabul jann Euh, euh, bi nga xam mooy setal jumaa ji ànd ko ak daayira Muxaddamatul Xidma ñoom ci taxawaay bu am solo bu rafet lool loolu nag dañ koy bàyyi mu wax taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ak itam relation ak taxawaay bi nga xam ne daal Muxaddamatul Xidma fekk nañ ko ci euh, mu ciy taxawee loolu itam nan ngeen mën a jàngate lool ak relation bi ngeen am. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi nuyu umma islam bi yëpp rawatina yoonu murid di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadinil Mountakha di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi loolu te wéral ko di ndokkeel jullit ñëpp ci sahru ramadan al mubarak bi nga xam ne moom lañ dugg bis ni ki borom subhaanahu wa mi nga xam ne moo ñu sant ñu woor ko ni mu ko diggee yàlla ñu kàttanal ba ñu defee ko noonu te lim ci diggee ci tuyaaba yàlla nañ co jot te mu ñu dencal ñu ko foo xam ne yàqu dafa àgg nin ko baaxoo defee di ko ànd ak waa daayiratu muqaddamatul xidma ci seen ndogo yi nga xam ne ñu ngi koy faral di def muy lu yàgg ñu ñu ciy woo ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak ñoom liggéeyub jumaa ji bokk na ci ñooñee daayiratu asaabul jannat bi nga xam ne ñooy seetal jumaay tubaa rawatina alxamis ju jot kon nag bi may ñëw maa ngi ànd ak sëñ Mbàkke Kan sama rak ak sëñ Basiiru Buso sëñ Basiiru Jaw ngir ñu teewal fi waa daayira bi yëpp kon nag ngir ñu leeral tuuti ci daayira bi rek mooy dayre la boo xam ne li leen tax a jóg mooy seetal jumaay Tuubaa bi mu sosoo nag yàgg na lool ndax sunu way wayjur sëriñ Bousso bi Bousso moo ko sosoon àndoon ko lenn ci ay mbokki taalibe demoon ca Cheikh Salih bi mu doog a toog xilaafa bi am ñetti weer laajoon ko ndigal ci seetal jumaa ji sëriñ bi jox leen ci ndigal ànd ak bég ca lool bég ca lool wax leen ne leen kon da ngeen mën a wéyal ndigal loolu alxames ju jot ngeen fexe ba jumaa ji lépp loo xamante ni war nañ ko ci buub ngeen buub ko mu set luñ ci war a raxas ngeen raxas ko boobee mu àndoon ak ay góor ak i jigéen booba jumaa ji nii mu mel ni melu ko woon jigéen ñi ñoo daa lay li wér jumaa ji yëpp góor ñi fare ci biir lépp lu ñu war a raxas ak tàpp di ko fëgg booba sax jiitu na daayira Muxaddamatul Xidma di tàmbali seen bu liggéey kon muy doon lu yàgg loo xam ne ba suñ jonni tey jii yàlla dogal sëriñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne moo yoroon loolu yàlla dogal mu bàyyi ko fi waaye ak njabootam taxawaay ca loola ànd ak seeni taalibe ak seeni soppe sëriñ Babacar Bousso nekk ca bopp ba ñoom ñëpp ñu àndandoo maase jàpp liggéey boobu nga xam ne seeni waajur moo ko fi bàyyi jàpp ko ak seen fukki loxo ba tey jii bis bu alxamis ju jot danañ àndandoo mobilisé wu fexe ba jumaa ji set biir ak bitti ànd ak soxna yi biir jumaa ji ak bitti jumaa ji ak kër yi nga xam ne ñoo war jumaa ji sax danañ fa àgg seetal koom set wicci ak saal ya fa nekk ak waajukaay ya nga xam ne ñoo fa nekk kon loolu mooy taxawaayu daayira bi ñu yàgg ànd ak nag waa Muxaddamatul Xidma ci liggéey yu bari ndax ki nga xam ne mooy kilifa gi bàyyi sëriñ bu sooy bu sax waa muqaddamatul xidma yaakaar naa bi ñu laaji ndigal sëriñ saali pour mu jox leen ndigal ci moom lañ jaaroon àndoon moo àndoon ak ñoom demoon ci seexul sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacke kon loolu di loo xam ne ànd ànd bi ànd bu yàgg a yàgg la saa buñ tolloo ci waxtu wi nag niñ ko baaxoo defee ndog yi dañu ci invité ñu dog si ak ñoom rawatina bis bu njëkk bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk jumaa ji kon nag ginnaaw loolu ñi ngi rafet lu baax a baax a baax ñoom seen taxawaay ci liggéeyub Serigne Touba bi ndax ni ma koy faral di waxee rek liggéey la boo xam ne ñoo ci wuti murid yëpp ndax liggéey boo xam ne kenn ku ne am nga ci wàll ginnaaw bi nga xam ne ñoo ci wutu ki fi nekkal Serigne Touba waaye ñoo ci wuti murid yëpp ndax lii kenn ku ne la waroon nga nekk ci jumaa ji di organiser nit ñi ak niñ fiy jaamoo yàlla loolu lu mat a bàyyi xel la ndax charia da koo fonk lool rawatina sàpp yi nga xam ne euh, ñi ngi koy taxaw ak wàll yu bëree bëri yoo xam ne lislaam da koo fonk santaane ko wut wax mbooloo moo xam ne ñoo koy taxawee ndax jumaa dëgg la imaam bi fay jiite ak noddukat bi doyu ci la ci des lépp nag daa mel ne ñoom ñoo leen ñoo ñoo ca fa ñoo ca farewoo yëpp kon loolu murid yëpp war nañ leen ci sant di leen ci ñaanal li nga xam ne moom la def weeru koor wu jot nag mooy organiser ay ndogu ñi nga xam ne dañoo aadawoo jullee si si jumaa ji da leen noppal lool ndax am na ci ñoo xam ne buñ bëggee dem seen kër ndogu ji fa ñëwaat dana xaw a metti ñi nga xam ne it xëy na ah, seen i bërëbu liggéeykaay lañ yor waaye bu dog jotee duñ mën a dem seen ah, seen i kër jàdd si jumaa ji ndogu ak ñi nga xam ne yàlla man loowu leen ko ñu mm-hmm. jàdd fi ndogu mm-hmm. loolu tuyaaba ju rëy rëy la te li ci li nga xam ne moom la ci sallallahu alayhi wa sallam wax ñun ñëpp xam nañ ko nañ ko waxee mm-hmm. képp ku dogal uh, aji woor sa tuyaaba yàlla rek moo ko xam kon daal ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne telewul dara te lépp mooma mu defal nu kàttan ak tawféex ba nga xam ne weer wi nga xam ne moom lañ dugg ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te mu yàggal fi a cheikh mun muntaxa mu am kàttan ak wir ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci dëkkam bi ci wàll yëpp ndax sëriñ muntaxa day koo xam ne laal na wàll yëpp wàll yëpp mi ngi koy suuxataat mi ngi koy dundalaat ci wàllu jàngukaay bi ci wàll lu mu mën a doon rek sëriñ muntaxa laal na ko kon nag yàlla ko fi yàlla yàggal ba mu àggalee liggéey yooyu ñu nit ñu ànd ko ak moom ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kaddu yu rafet na lool macha allah euh, teg na ci yoon teg na ci taalibe euh, wax na relation bi diggante daayira Muxaddamatul Xidma ak seen taxawaay fam tàmbale ci sëñ bu soob ba léegi yàlla na ko yàlla gën a yàggu yàggal te nangu ko ci daje Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba mi nga xam ne moom la ñu liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa